ngelaw lii paase nii ak taw bu metti bi dafa naawal suñuy toiture yëpp naaw senga yëpp naaw nu nga sa naaj ba toog bu ñu xëyee dañuy luy ay palisoor sampaka palisoor chaque jour téeméer métti na si jaboot ju xëy war daw dépasse war daw añ war daw reer yàlla dogal nag si ndimbalal yàlla ministre monsieur le ministre Ismaïla Madior Fall tey jii mu wàcc si Tëngéej ñëw xool quai de bi secteur de la pêche ni mu tëddee ak la fa ay ay problème ak la fay ay jànkonteel temps yëpp dañ fa amoon benn lakk bu metti ba benn oto moteur yàqu si ñoom seeni kayit këyit yàqule foo laal day metti nun nag wax dëgg yàlla nu ngi sant monsieur le ministre Ismaïla Madior Fall taxawaayam jog gi mu jog sol dàllaam pour dimbali Tëngéej jàppale waa Tëngéej saafara na seen soxla yàlla yàlla mottali ay yéeneem sunun Tëngéej sonn nañu man moom ñi fi nekk waxuma ñay wax parce que ñoom xam na ñun xam nañ ña mm-hmm. amaluñu benn njariñ gis nga ñee toog ne ñëpp suñu emploi te ñoo leen di fay kon dëkk ku fa nekk di créer emploi am nga fa njariñ te kenn ñu te dañuy créer emploi kon maire bi war nañ ñoo dimbali parce que buñu ñu ni sa rang ba sa maire ba lañuy dem waye rang ñu fa fi lañuy tok buñ amé lu ñu yóbbu seen njabot yobbu ko seen njabot te kenn ñu kon ñu sonna nañ de dama bëgg nak maire yi fi nekk la wax de waxuma seen wax ñom pare naa si ñoom ñii di ñew ku ñu naru la jappalé naru jappalé dëkk bi yalla bo am Et euh, je profite de la même occasion pour dire que nous sommes vraiment contents du président de la République de nous avoir euh, pris notre fils, un digne fils de Rufus, le professeur Ismaël Major, qui est pétri d'expérience et il l'a démontré sur le plan national et international. Il a fait un bon choix sur notre digne fils, M. Ismaël Major Fall. Et nous disons merci beaucoup euh, à M. le Président de la République, une fois de plus, et nous lançons un message auprès du président de la République pour lui dire que nous avons de l'espoir au niveau de, de Rufisque pour soutenir M. Ismaël Major Far comme notre principal candidat à la mairie de Rufisque. Je dama ñëw parce que d'abord man euh, doomu Tëngéej la euh, soo nekkee doomu Tëngéej li ngay njëkk a xam mooy géej ak napp ñun bi ñu nekkee xale fii lañ doon ñëw su ñuy ñëwee fii su gaal yi teere dañuy ñëw jàpp ci mbaal yi ci ñu may la su la mayee jën nga lak yeen say sax nga def ci ay yit so len ko laké ba paré nak def limong lek ñun loolu lañu xam loolu motax fi suma fi ñew dama fi ñew ndax yag na fee ñew depuis ma nek xalé ma fi ñew waye waaye damay ñëw fii tamit parce que man sama liggéey moy ministre d'état auprès du président de la république ministre d'état moy lan lan moy liggéeyam ministre d'état suñu la ko waxé moy da nga wara xol ci réew mi muy tengej muy feneen secteur yi nga xamanteni dafa am ay problème nga dem rencontrer nit ñi séq ak waxtaan xool li nga xamante ni moom moo comme problème nga yeggale ko président parce que président mënul yegg le gouvernement bi tamit ñiy liggéey yegg fépp su boobaa nag yow yaay ñëw jël problème yi wax ko président président tamit ut ay solution jàppale ñooñu ne na tam ma ne damay candidat à la candidature pour maire mooy dëkk bi dama fay bëgg a nekk maire waaye nag dëkk soo fay nekk maire dangay xool li nga xam ne mooy doxal dëkk ba la nga xamante ni mooy koom-koomu dëkk bi te koom-koomu Tëngéej soo koy wax bi ci jiitu napp jii ci la bokk ñii ci jiitu ñii napp la ñii ci jiitu ñii ñii ñii jaay la jën yi ñii ci jiitu mooy ñiy transformé jën yi ñii ci jiitu mooy ñiy yore glace gi si dafa nekk secteur boo xamante ne dafa am euh, li ñuy wax chaîne de valeur mooy ñi ciy yëngatu dafa bari loolu nag soo ko xamee ci dëkk da ngay xam ne secteur boobu am na solo nga dem nag ndajeeg nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur bi moo tax tey ñu ñëw fii dégg ngeen ko sànq waxtaan ak acteurs yi ñu expliqué ñu problème yi problème yi nag bari na munuñu ko sax lim daanaka sànq ñoom wax nañ ko gis nañu fii ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu mel euh, hygiène bi euh, ci côté wér-gu-yaram gis nañu condition liggéey yi ni mu méttee gis nañu toiture bi naaw na gis nañu dafa lëndëm président de la république sax dimbali na len bañu am fi ay lampadaire parce que lampadaire yi nak président de la république moko indi de du maire euh, donc lu tax top tawuñu ko lu tax du ñu ñëw fii man xawmako peut-être que ñom am nañu sen raison mais lolu maire bi moko top taw lu maire yi di taw nak ñu ne ñun candidat lañu maire bis buñu ñu dinañu ñëw duñ duñ duñ duñ fi géej dinañu ñëw di waxtaan ak ñom ba nga xamanteni dinañu trouver ay solution ci problème yi nga xam ne am na fii. li nga xam ne maire bi moo ko mën def loolu moom mën nañ ci jël engagement tout de suite waaye dafa am loo xam ne nag mënuñ ci jël engagement mais mën nañ ci def li ñuy wax nga xamante ne nag état la. parce que ñun Sénégal dañu nekk dans un euh, dans un état unitaire décentralisé mooy lan mooy dafa yoo xamante ni collectif local ñoo ko yore waaye dafa am yoo xam ne état moo ko yore ba léegi nag yi nga xam ne nag état ko yore foofu nag suñu liggéey ministre d'état nag mooy jóg dootul affaire maire déedéet. suñu suñu suñu casquette ministre d'État la ñu jël jël problème yi recensé ko dem nag yóbbu ko jébbal ko ci président de la république Macky Sall nag waa Tëngéej waa quai bi ñiy yëngatu foofu lii la ñu am comme problème président bëgg nañu nga jàppale leen ci loolu nag mooy suñu liggéeyu ministre d'État